شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه min al la الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأدخل الإله في قلوب من تسببوا في نقله ساك سمن ixraajuhu ila bilaadin naaiya wa naala fiha fawqa sam'i saariya zor man tuhib wa in sattat bika daaru wa xaala min dunihi saalun wa awaaru laa yamna annaka bu'dun min siyaaratihi innal muhibba liman yahwaa sawaaru mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu santaatee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi santaat cheikhuna cheikh ahmad bamba di ñaanal cheikh mamadou muntaxa mu yàgg fi loolu ti wér mbokk mm-hmm. yi mbooloo yii ngeen mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo lëkkale fédération yi nga xamante ni mboole murit yi daayira yi yëngu ca France ñii ñoo leen lëkkale muy ay ndaw yoo xamante ni waxtu wu nekk dañuy ñëw jël seeni addiya di ko joyal ci ki fi nekkal Serigne Touba muy mu Cheikh Mouhamadul Mountakha mbokk yi dinaa jël samay kàddu joyal ko ci bokk yi ku mel ni Serigne Bamba nga xam ne mooy jëwrin ji su noppee ma joxaat Serigne Bamba moom it mooy secrétariat bi su ma noppee ñu jox Baye Gora mu wax ci kàddu ñi nga xamante ni mooy mag ñi euh, kon Baye Bamba ma jox la rek nga daal di ubbi su ko defee ñu daal di wéy ci Serigne Khadim mi nga xam ne mooy secrétariat général bi su ko defee ñu door a wéyal nag li nga xamante ni moo nu tax a daje daje saal bi waaye àndandoo nag dem siyaare ji ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha sëñ Bamba kàddu yaa ngi ne macha allah barakallahu fiik asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di dellu di santaat yàlla moom ñu may ñu teewee tey màggal gi ba weesu ba ñu war a mën a teewaat boole suñu liggéey fas yéene ziyaare Serigne tubaa Serigne Mountakha ni ñu koy faral defee ay at yu ne eh, màggal gi rek nag nekk na lu nga xamee ne ziyaar bi nekk na lu nga xamee ni lu spécial la di si delluwaat di sant yàlla ànd seeg eh, suñuy bàyyi suñu magi taalibe ñi nga xamee ni ñoom ñoo ñu xalal yoon wi ak mbooleem mbokk taalibe yi nga xamee ni jëwri ñi nga xamee ni ñi ngi si fédération yi ñëw nañu teew si tey fas yéene jëmmal bis bi ànd ak euh, sëñ Mamor ak euh, sëñ Xaban Falilou ak sëñ euh, Chérif Falilou ni ñu ko daan defee at mu jot ak sëñ Sambuso fas yéene ziare sëñ Muntaxa sëñ Touba. Mm-hmm. mbir mi nag sant rek la. magu taalibe yi ginnaaw bi nga xamee ni daaw ànd na fekk sunu baay baay taala yàlla na ko yàlla yokk leeram eh, sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi teeru ko ak Cheikh Mouhamadou Moustapha teeru ko sëñ ajar àjjanay eh, Firdawsi noonu lañ koy ànd ak ñoom di ko ànd ak suñu mag yi yàlla nañ fi yàgg te wér eh, ànd ak seeg ay ay xale ñu nga xam ne ñu am passeef di ñaan yàlla dëgër leen ba lii nga xamee ni mag ñi xal nañ ko ñu defal leen si lu fonk seen jort liggéey ba am ngërëmal sëriñ bi kon euh, xam naa ne duma def lu dul santaat sunu bàyyi ak sunu mbokk taal yi nga xam ne ni mbooleem si gox yi nekk France yi fasantikoo ña nga fa waaye topp ndigal suñu borom mi nga xamee ni moom la ñu Cheikh Mourtada nafaanullah bi barakaat yi daan fàttali saa su ne naan ñu fas yéene mbooloo ngooy si buumul lislaa bi tey dimbalante si lu baax tey tere lu bon te bañ a wasaaroo loolu yi moom moo waral mhm. maanaam ñu boole suñu liggéey suñu yéene mhm. fas yéene ko jëbal sëriñ Tuubaa ànd ak suñu baay ak suñu mag yi macha allah te sëñ Xaadim nekk suñu rak nekk suñu lépp ku am passeef ak ginnaaw gi sama baay yi nekk fii ak suñu magi taalibe yi mhm. loolu nag nekk lu dul tawfeex xam ne màggal gi ak cant rek la ñu dolli si waat di santaat li nga xam ne suñu borom defal nañ ko si daraje sëriñ bi barakallahu fiik Euh, jërëjëf Baye Bamba mooy jëwriñu fédération bi mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu France macha allah di ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne wax na ko te mooy rek li alquran di wax ni waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu te Cheikh Mouhamadul Mountakha doon Cheikh Mouhamadul Mourtada Cheikh Mouhamadul Mourtada doon ci liggéey liggéey bu am solo kon ñu jox Serigne Khadim mi nga xamante ni mooy secrétariat bu mbooloo mi nga xamante ni mooy mbooloo mi lëkkale mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk France euh, Serigne Khadim ku wax euh, daayira wax fédération wax mbooloo mu demee nii kon loolu naka la naka la naka la demee ci ay daayira ci ay fédération te yéen ñëpp bokkuleen fu ngeen dëkk ba mën a coordonné ba àndandoo war a ñëw amal ziar bu am solo bi. waaw salaamaaleykum jërëjëf sëñ Koso. ma faal ma faal. demal wanal wanal wanal. ak asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatu euh, jërëjëf ko Koso ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax a baax di jiital ci siyaar bi suñu jëruñ si Ahmadou Bamba Thiam di ko ñaanal mu yàgg fi lool ñu ànd ak moom liggéey bi waaye tamit di siyaar suñu magum taalibe yi suñu baay yi nga xam ne nii ñoom la ñu séqal li taxawaay bi wax dëgg fa yàlla dañoo waroon toog si ñoom toog si suuf ñoom ñu taxaw ci kaw kon ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax a baax a baax Euh, comme ni nga ko waxee fédération nationale des mourides de France mooy mbooloo mi nga xam ne nii moo ngànk mbooleem mouride yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci France ñu diviser ko en six fédérations régionales muy fédération est fédération ouest fédération noor fédération sud fédération centre ak fédération Île-de-France fédération bu ci nekk am ay dayre yoo xam ne nii ñoom ñoom ñoom ñoo jokkuwaat ci biir nga xam ne gox ba ñu nekk dañoo da dëkk bu ci nekk wala ville bu ci nekk daayira yi ñoom ñoo dajaloo bokk ci ab fédération am koo xam ne nii moom lañ def jëwriñ ga ñu ànd di liggéey li nga xam ne moom mooy liggéey fédération nationale bi bu ñu waxee fédération centre danga gis sëñ Idrissa Dia mi nga xam ne nii moo nekk ci ginnaaw ànd kook sëñ Ndiaga Seck bu ñu waxee fédération est bi sëñ Souleymane Thiam mi ngi fa ak mbokktaay bi nga xam ne ñoom la fa suñu waxee fédération Île-de-France sëñ Insa Fall ak mbooleem ñoom sëñ Ali Sarr nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ña nga foofu noonu fédération s sëñ euh, suñ jëwriñ euh, ki sëñ ki Thiam euh, mi ngi fa euh, suñu waxee ci fédération sud bi sëñ Aliou Guèye ak ki nga xam ni mooy sëñ Ahmadou Bamba Thiam ak mbooleem mbokk taalibe nga xam ñoo fa nekk ña ngi fa sëñ Khadim Samb tamit ca Taverny bu ñu waxee fédération nord sëñ sëñ Ousmane Niang sëñ Ousmane Ndiaye ma ngi fa mbooleem mbokk taalibe yi muy loo xam ne dafa ngënk mbooleem daayira yi ak mbokk taalibe nga xam ne ñu ngi fa nekk ñu ànd ci liggéey bu sell di ci woo mbokk taalibe yi di ci woo ñëpp nga xam ni sooy gis liggéey yi nga xam ñu ngi koy amal moo xam ay kër sëñ Tuubaa yi ñu fay taxawal la moo xam njàngaleem ndaw ñi la moo xam tegaat nit ñi ci siraatul mustaqim bi nga xam ne nii moom la moom lañu si sëriñ bi bàyyil comme daal lool loolu ko soo loolu mooy ni nga xam ne nii mën nañ koo tàmbalee ci kàddu yi xañ na jox kàddu gi ku mu ne sëñ Baye Iba Baye Iba Diop bu ko defee mu wax ci turu magum taalibe yi ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax a baax di tuubaat lépp lu jub ci ko sëriñ bi lépp lu ci dëng tamit ci ñoon la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi ba tey ñoo ngeek fédération bi nga xamante ni moo lëkkale mboolem réewum France eh, Serigne Abdou Wahab Fall nag moom it fekk nañ ko fi mu bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni damay wax ni liggéey bi nag eh, macha allah su fekkee jëmm la eh, social moom. na ngeen xam ni mooy li tàmbalee ca wagg ya ba ca suuf macha allah mooy jëmmi yaram wi ndax damay wax ni culturel mooy ruugi waaye social mooy li nga xamante ni mooy dundal ruugi te mooy yaram wi macha allah mooy jëmm ji eh, kon tàllal nañ ko sunu micro moom it mu andil nu maanaam naka lay taxawoo li nga xamante ni mooy social ci biir fédération bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk jur yi ñoo ngi leen di di leen sant di gërëm di tàmbalee wax ji rek ci li sëñ wax ba bàyyi ak ñi ma fi jiitu ñëpp. noonu dong la mën a deme waaw social nag moom wax dëgg yàlla ñoo ngi ci ñoo ko yore ñoo ngi ciy góorlu di ci taxawoo waaye nag li ñu ci dox lépp it ci ndigalu sun mag ñi nga xam ne ñoo ñu ko bàyyee woon ci lañ nekk rek te lañ fas yéene continuer itam ba ba ba yàlla dogal ñu fekk leen ci mag ba mën a bàyyi ñu nit bàyyee ko ñi nga xam ne moo ñoo ñu féete ndaw tey ñoo ngi ci tànk yooyu itam. ndax lu gàtt gàtt fi ñu toll nii it ñoo ngi bëgg a xam na àggaguñ ci ñoom waaye jege nañ leen waaw di sant ñëpp di leen gërëm tey fas yéene rek nii ñu doxale léegi bi daal ñu continuer ci mag ñi daal nañ déggal ndaw ñi nañ déggal mag ñi mag ñi nañuy diggal xale yi bu ko defee daal bu buñ ci àndandooxee ni ko sëñ Mourtala bëggee woon maam Mor bëggee ko ni noonu lañ ko amee ci barke sëñ Touba yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéewal defal ñu sutura te ñu yàgg ko fekk ñun ñëpp. bala ngaa tëj am na loo xam ne nag ko wax social rawatina bitim réew te yàlla moom dafay dundal nit di ko faat ndax social. bu France ñoom taxaw nañ ci bu fa nit wàññi koo wan ñu fexe ba yóbbu ko fa nga xam ne fa la dëkk wala déet. waaw ah, waaw loolu kay ñoo ngi ci waaw mu tàmbali ko sax dañ cee nekk képp koo xam ne kii yàlla dogal na wàññi nga. am na benn association boo xam ni it ñëpp lañ ci woo ku ci mën a bokk nga bokk ci képp ku ci bokk itam bu te yàlla dogal nga jiitu ñoom ñoo lay yóbbu defal wutal la bi ak ki ngay àndat. am lu ñu lay jox loo xam ne it seen njaboot lañ koy jaalee loolu it ñu ngi ci loolu wallahi waaw képp koo xam ne yàlla dogal na nga wéradi danañ àndandoo ñun ñëpp seeti la noonu daal ci lañ nekk. kon ban soññee ngay jox membre yi nga xam ne ñoo nekk foofa ca euh, réewum France ñu war a góorgóorlu bokk ci daayira bi ngir nag tawat day dab doomu aadama ni ko noonu faatoot day dab doomu aadama te yooyu yëpp ay bénéfice la yoo xam ne bokkul ak ràmmuk sëriñ bi dara waaye yooyu moom lu ñuy gis la te mën cee teg bët. xanaa ñu dollee góor rek te wuy wuy ci woote bi ñu leen woo ñëpp ndax léeg-léeg yàlla dogal it nga gis koo xam ne wàññiku na duñ xam ci moom dara dara dara dara waaye du tey danañ góorgóorlu fexe ba mu dem ñibbisi ci réew mii loolu nag dafa mat a moytandiku lii koy lii tax nga mën see mucc itam fañ woon nit ñi ñu wujji fa nga jéem a fekk leen a wujji ñoom itam woote boobu bu ko defee lu yàlla mën a dogal rek nga xam ne noonu la ñu ñu mën laa def ni ñu def say moroom yàlla nañu yàlla dimbali nag ñun ñëpp rek te képp ku ci bokk itam yàlla ci bokk maanaam di di te bañ a teggi waaw yàlla nañ ko yàlla defal barke sëñ Touba. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi rawatina ci sunu bokki bi yi nga xam ne la bokk yaakaar xaadimul Moustapha si Ahmadul Xadim fu waay mën a nekk te toog fa di lu seetaan yëkkati sunu loxoy xol. ak it sunu yéene ci sëriñ bi teg ko ci sa loxo di la siyaare siyaare gu kawe goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem li ñii ma jiitu nag wax man daanaka dootuma ci dellu si waaye rek damay wax sama waxi bopp waaye lépp nag ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bi rek la mag ñi bu ñu demee ba wóoroo def Sénégal gi un an dalee na leer bàyyi nañu ca si ginnaaw ndaw yoo xam ne am nañu cawarte ga mag ñi aman am nañoo tam positif ba mag ñi aman am nañu tam na am yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ga mag ñi aman ba tax mag ñi mën a jóge màggalug daaw laa la laa fi ñëw ba ren maa ngi fi te liggéey bi day yokk waaye du wàññeeku kon nag kóolute gi ma aman ci ñoom ak euh, xalalal gi ma leen xalalal yoon na ñu topp ko ba dem ba raw ma kon ñooñu moo loola moo ma may lii ma def ren kon maa ngi leen ci di gërëm di leen sant ci seen taxawaay yu rafet li may waxat nag rek te euh, lu ma denc ci di ko wax seeg maa ngi dund bisu ren bisu tey bii nëgë si daaw bàyyi taala sëy àndalal mu jiite délégation bi yëbbali daayira bi ci turu mboole murit bu nekk France lii nag day liggéeyu Sëriñ Tuubaa boo xam ne ab jaam lott na ci ndax benn ville dong ca ca ca Europe boole leen ba ñu bokk benn daayira yombul ci nag France gépp gépp bokk benn daayira di yëkkatee ndoo di tërale ndoo ba kenn ne waaw ñëpp ni waaw ba kenn ne déet ñëpp di déet loolu nag liggéey la boo xam ne Serigne Touba ci boobu moo na ko tànnal liggéeyal nu ko ndax xam ne day lëkk bu xat di lëkk bu bari ay mbir mun na nag kon xaaral sama jubali taalibe yi naa ko jubali foofa ba ñu juboo ba doon benn bu ko defee feneen fu ca des bu ma fa rombee rek ñëpp juboo mm-hmm. loolu nag leeral na ni nag Serigne Touba liggéey bi mu liggéey ci nun teg na ci suñu bët te xam na ko li des nag mooy nun ñii ak ñi war a ñëw ñi war a ñëw nañu xam ni aw mag lañu fekk për ba ñu fay ñëw fekkuñu fa dara ñu laxasaayu takk di dox ci nees beeg galaas geeg muy taw muy naaj ñu laxasaayu ba lépp Sëriñ Tuubaa taxaw fa ñu jàpp ko jàppin wér itam ba ay seeni doom ak seeni jarbaat ñëw fekk leen fa téye liggéey ba gën leen koo bëgg gën leen koo fonk ba liñ ci bëgg aman ci yéeneem lépp yàlla defal leen ko muy lu muy muy ndaw ñi ñëwul nag laay wax yow ndaw ñi ñëw laay waxal nag ku ci ñëw fu mel ni France fekk fa taalibe yi ñu toog boo fa bëggee liggéey sëñ Tuubaa liggéey bu jub boo ñëwee dangay toog nuyoo rek toogal te déglu mag ñi nga xam ne yàgg nañ ci liggéey ba ñu won la yoon woo xam ne boo ko wàccul di nga am la am kon nag wax ji du gudd yàgg na te ay maa ngi leen di jéggalu di leen balu àq te di leen bal ak tey ñaan ci barkeb Serigne Touba màggal gii nu génn niit yàlla dimbali nu ba may nu fi juróom-ñeent fukki màggal ca kanam tey lépp lu nu ci yëngu lépp lu nu ci yëkkati lépp lu nu ci doxal. yàlla nangul na ko ak yonent bi ak sëriñ Touba ba nu bokk ci ñi sëriñ Touba di bëggee yow mal xëyaam ci bu ñu ko woo amaa muy jóg nun nu bokk ci ñu koy jógal ci la mu jaam yeeg def euh, euh, xettali jaame yàlla yi ci ay xat-xat ñu nekk yàlla na ko Serigne Touba boole asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Baye Iba ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati nga ko euh, daal dinay dëggal kàddu am solo yi nga xamante ne sëriñ xaadim secrétaire indi na ko waaye sëriñ bambaat indi na ko macha allah loolu lépp nag boo ko boolee mooy ak lëkkoo gi nga xam ne moom la sëriñ bi bëggan ci yéen te loolu naka jekk sëriñ Touba daan ko ñaan yaa rabbi ijal muridina maan fiis nikal asin wa sam lañ maa waaye dégg nañ ci biir kàddu yi net bàyyi ibba noonu mu ko waxee mooy peccum bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya mm. kon tey dafay mel ni kon ndaw ñi nga xamante ne ñoo fa nekk am nañ aw sas waaye ñi ñëwit am nañ aw sas ngir mel ndaw ña buñ ñëwee fekk ñu xàll France ba mu àgg xam nañ ne loola mag na ñoo ko te naka jekk Serigne Touba da ko doon bàyyiloo xel muy mag waaye daan bàyyiloo xel ndaw kon yaakaar naa ni liggéey boo xam ne gis nañ fa ay mag yoo xamante ne bi jaaw nañ gis fa ay ndaw yoo xam ne amaguñ ngeen fukki at kon liggéey boobu mat naa rafet njort bu baax a baax mm-hmm. kon lii incha allahu taala moo doon ak ubbee waaye dinañ dem ci biir amal fa ay waxtaan danañ fas yéenee àndandoo ak télévision Mafatihul Bichri mm-hmm. ak télévision ICAP fas yéenee dem ci ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim muy Cheikh Mamadul Muntaqa su ko defee amal fa ay ziar buñ ca lépp lu fa jógee danañ leen ko wanale salaamaaleykum wa rahmatullahi taala taala wa barakaatu salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala mahin mahal habsa wa safar فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه